maam borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall balaa bii fi ne ci réew mi daj àdduna bi noo ngi ñaan ci doole suñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko fi yàlla jëlee ñi dal yàlla nañ wér ñi mu dalagut yàlla bu mu dal kenn ci yàlla jële ko fi te toxal ci ak wér lool ak ak ak jàmm gu bari lool di di soññ itam nag ñun ñëpp suñu bopp ak ñu soññi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di leen xamal ni kat liggéey bii nga xam ni moom la maam Cheikh Fall daan liggéeyal sëñ Touba ci yoon wi daa ko liggéeyal sëñ Touba ci yoonu murit muy ndog yi ku lu bàyyi Fall fii ne ñëpp a ngi ci ku ne xam ne nag ren ji liggéey bi deme na noo xam ni am nag soppiku bis bii àjjuma ji nga xam ne moo njëkk ci weeru koor gi lañ ñëw fii kër sëñ taxa indi ko bàyyi koo kër sëñ Assane Fall ak sëñ Amdi Khady Fall moom Cheikh Serif Assane Fall ñu indi ko ànd ay doomam ak ñu ñëw fii teew fi soññiwaat taalibe yi yëpp soññiwaat ci yar bi soññiwaat ci teggin yi soññiwaat ci lépp ci ndogu liggéey bi nga xam ni sunu maam moo ko fi doon def ba ci sunuy bàyyi ba ci nun ñi tey nu bëgg itam nan ko daan defee nan ko ne defee rek te ànd ceeg ndigalul sëñ bi itam ci li nga xam ne moom la ñuy tere lépp itam ñu ñu ñu ñu dugalaale ko ci nañ takk masque yi nañ takk gants yi nañu fas yéene itam di moytu di raxasu ba set te dandante dante comme noonu ñu ko waxee rek te si yéene cee ñaan tam sàkku ci jàngoro ji jóge fi rek moom daal lépp lu ñu ciy def rek noo ngi ci ñaan ci sëñ Touba ak maam Cheikh Ibra Fall mu dàqal nu jàngoro ji. fii nu koy waxee nii nag dañoo indi woon ndogo yi ba toog fii su ànd ak sëñ Cheikh ñu ak ñëw fii ci kër sëñ Abdoulahi Mbacke fi la ñu toog nii tey di ci wax kon loolu daal noo ci ñaan bu baax a baax a baax di soññ itam nag taalib yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi gépp ku fi waaye ne ci ñeneen ci réew mi ak ngi nekk bitim réew yépp kenn ku ne ku xam na ne diw bi dikk bi ak dem bi mënta ne waaye nag kenn ku ne foo ne la am te mën koo yónnee nga jotal ko noonu noonu noo ngi ci soññ ñëpp nag di soññ suñu boppe itam bu baax a baax waaw di leen xamal itam nag lii nag moom nii la de waaye nag daawul deme nii nu ñaan daal lii moom yam ren bu amati mukk ñun ñëpp ba nañ ko daan defee rek ci ñëpp góor a jigéen mag a ndaw sëñ bi nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn ku ne xam na sa positif ci yoon wi xam nañ xel ni tey kenn ku ne loo ci def rek xeem nga ko ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax tey ñaan rek fan lu gudd ak wér tey baal àq ñëpp tey baal àq ñëpp. mooy sant maanaam ñi nga xamante ne ñoom la yabal si boroom télé bi nga xam ne mooy waa TFM ba ko tàmbalee ci kilifa ga Youssou Ndour jaar ca doom ja ko yor. li biraan ak ñoom ñëpp rek sëñ baa ngi di sant di gërëm dañu leen ñaanal bu baax a baax nag yëg na seen taxawaay ci réew mi yëg na seen taxawaay ci diina ji rawatina nag fii ñu nekk di Touba yëg na seen taxawaay bu baax a baax kon mi ngi ñaan sa borom yokku leen te wéral leen te kàttanal leen ba lépp loo xamante ni ñoo ngi ko yéene liggéey sa borom yeggale leen ko jërë ngeen